stade ñu ngi ci bunt bi nii dèjà euh, Balla Gaye numéro 2 këram lañ jugee ànd ak moom ba ci stade bi si na donc ñu leen di jox ambiance bi nga xamante ne moom moo xew euh, Balla Gaye yegg na yegg nga xamante ne moom mooy euh, leer laa leen man la ma acteur bi jënd waat. waaw jaajëf. mooy loo xew. waaw an sa pied yow an sa pied. mooy yow da ngay xaar mbalit ngeen. waaw.

d' accord lan ngay ngay wax Balla tey. waaw dama koy ñaanal rek def nànk rek nga xalaat supporter yi nga def nànk rek yàlla ko ah maa ngi nii di dugg man maa waa Sakho famille fan si club ah, ñun ñooy waa Sakho famille. d' accord bëgg Balla Gaye ba jël suñu sant santal ko. dëgg la kon allah kay macha allah waaye père. merci beaucoup. jaajëf waay. ay ca àndandoog yéen rek lépp loo xam ne daf ciy tukkee gis nga gaa yaa ngi dugg ñu ngi nii ci buntu stade bi gaa yaa ngi dugg grand bi gudd na torop Balla Gaye kase gaay gaa yaa ngi dugg gaa yaa ngi dugg ran baa ngi nii macha allah laamu ju nar a neex la Balla Gaye Gris Bordeaux Balla Gaye yegsi na Gris Bordeaux yegsi na Gris Bordeaux moo ko njëkk a yegsi gis ngeen circulation bi ni mu méttee oto yi sens interdit lañ leen di jëlloo beneen yoon bi moom yoon nit nit nit moom du fee jaar ndax oto moom du fee jaar ndax nit ñi ñooy euh, rang ndeysaan c'est fort lamb ngi nii lamb dekkiwaat na ci diggante Balla Gaye 2 ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Gris Bordeaux troisième digue de Fass ndeysaan dégg ngeen stade bi ma ngi euh, jax mun nag dugg moom duñ ko mën duñ ko mën ndax euh, c'est pas arrêté par la presse c'est pas arrêté par la presse ah 2-0 ok 2-0 ndeysaan <laughs> di nga fan su Balla Gaye ñii nee nañ 1-1 ñii nee ndeysaan waa Médina TV mais cher 2-0 d'accord gars yi nee nañ 2 waa 1-1 e e bi deux zéro a courant baa ngi avancé gars yi ñu dugg ñaata ñaata. 2-0 ah. 2-0. 1-1 ah. 2-0 ah. kon su Balla Gaye bari nañ ci macha allah Gris Bordeaux Tigre de Fass mi ngi noonu. Fatou ah jaajëf waay moom très cher. yaa ngi daw de daw fas yi amateur yaa ngi nii di dugg lamb ju neex lañ nar a fekke tey diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye numéro 2 c'est un combat de tous les dangers Gris Bordeaux Balla Gaye numéro 2 Bordeaux Balla Gaye numéro làmb ju nar a neex deux zéro bi ngeen déclaré un bi nag un un ana waa 2-0. supporter guy gi Gris Bordeaux li ngeen ko teg dafa diis dernière chance. nga ne bu daanul. APS. <laughs> dégg nga gars yi Gris Piqué <laughs> Bordeaux bi mooy dernière chance am ngeen ah. ah ndeysaan gars yi gris kon si gris yaa ngi nii li solo la la li solo la la. nante yëpp jóg nañu. li solo wala meew. li solo wala meew. Dakar booy borom Dakar lu lañ daal. mooy borom dogal moom la ñu yéen ay nante yi. billaay nante yëpp jóg nañu. waa Kéja waaye alal lañ. Palestine bi ñu yem parce que yàlla Palestine bi ñu yem. Palestine bi ñu yem nante yëpp jóg nañu. barke alxuraan. Ah, lii du meew du meew kii poson la poson la. Palestine bi ñu yem. dafa mel ni waa Medina yi ñooy ñëw nii di yëngal. waa Medina yaa ngi noonu. mais nag bii mooy dernière chance am. ndeysaan stade bi bëri na nit li lépp ay doomu aadama lañ war a ñëw seetaan si làmb ji waa gendarmerie ñu ngi def liggéey bu am solo ñu ngi euh, régler circulation bi di gérer rang yi waa Médina yaa ngi noonu les bordelais ña ngi noonu ndeysaan làmb dekki waat na de waa saa yow yow foo jógee di xoolal ah xoolal lan lii kenn da koo moom weex weex la rek. non soo boo xoolee xam na fu a bëri. ak ak lépp ak lépp lépp naa bii mooy dernière chance am. non bii dernière ah. ngeen lamb ju rëy ngeen lamb ju moom it yàlla da ngay écharpe bi dañ lay dina raa kilo lan def def daal relax pare pour lamb ji kuy daan ay bordo la ngeen ba ci kanam dina leer ci kanam dina leer loolu 2-0 de ah gars yi gars ay termes ñoo ma neex quoi ay daw ñu yoole ay tus saketo ay ca jege leen ngeen jege amul ragal de xaaral ñu dem ba côté bële foofu la ñuy seggee foofu la ñuy seggee côté bee la ñuy seggee amu amul bee doo ci barrière gaay yaa noonu nante yi Balla Gaye kese 2-0 ngeen déclaré waa kon ñu xaar ayca la police est la gendarmerie est là ñu ngi def liggéey bu am solo macha allah di seg gars yi ku amul ticket doo jàll ci barrière yi loolu dafa leer consigne la gars ngi jaay ticket yi ma ngi dem lamb ji nar naa neex xale yu jigéen yi sañse xale yu góor yi sañse oto yaa ngi noonu fii la ñuy duggee oto yi fii la ñuy duggee pour muy leer clair. Balla Gaye Gris Bordeaux montre cher respect naka la